yéen ñi nga xam ne nag bëgg ngeen di jot vidéo yi di ba jot audio yi am na foo ne boo fa cliquer incha allah da nga mën a abonné nga xam ne lu ñëw ci rek nga jot ci. asalaamaaleykum mbokk déglukat yi ak seetaankat yi ñu ngi fii ci kër maam Thierno Mikhdad Mbacké fii ci Tawfekh ñëw waxtaan ak moom ci lu jëm ci wàllu màggal gi sëriñ bi ginnaaw bi ñu la nuyoo siyaare la ñu ngi lay gotal euh, siyaare ki nga xam ne mooy Oustaz Alioune sàll bi nga xam ne moo jiite bi lay di Ali Imran TV. tey ñu ñëwoon tey file seet si la ndokkeel la ci bés bi euh, nemeeku la euh, bugg nag sax ak yow waxtaan bu bu tuuti rek dem ci wàllu màggal gi ak loo xam ne aju na ci dem ci wàllu taxawaayu dëkk beeg lu mu laaj surtout ren lu mu tombeek mbas mi mbas mi nga xam ne mooy euh, li nga xam ne tombe rek mbasum mbasum ren bi di Covid 19 bi nekk loo xam ne actualité la war nañ ci mën a maanaam andi ay kàddu yoo xam ne dinañ ko taxtaan ci yow ñu buggoon nag nga baaxee ñu kàddu nuyoo.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 di balu àq ñëppit di bal ñëpp àq di ñaan itam màggal gi nu nekk nu génn ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te yàlla nangul nu sunu jaamu ci màggal gi mhmm, ok bismillah jërëjëf Mbacke dinañ ko tal nuyoo yooyu léegi ni mu gën a yaatoo nga xam ne mooy oustaz Alioune Sall ñu bëggoon nag ni ñu ko tàmm defee rek màggal gu nekk ñu waxtaan ci màggal gi ci boppam lan mooy maanaam cëslaay li ak nga xam ne moom lañ ko mën a maanaam jàppee ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu taarix nooñu ci mën a euh, leeral ci wàllu woowu. Hmm, waaw waaw taarixu màggal gi de moom leen ciy jàpp rek mooy euh, ni ko sëriñ bi santaane woon ak ya ca xewoon ya ca xewoon ak weesuut mooy bisub tey bii la jigéen fii ci fajaru tey gi génn ci njabootam génn dem liggéey liggéeyam bu rëy bii nga xam ni tey jii mën nañu wax ne ju junu am noonu senegal ci génnam boobu lañ ko amee ndax soo ko xoolee ci wàllu sayir te lay daal leer ni jëfi Sëriñ Tuubaa mënu àggale fu nu àgg soo ko xoolee ci wàllu baatin ab liggéeyam fu lislaam bi àgg rek ci Sénégal gi moo ko fa àggale kon te histoire bi moom mooy loolu rek histoire màggal gi ba sëriñ bi demee ba ñëw ñibbisi daa wax ne nañ ma sant la yàlla ci bis bii nga xam ne ci la ma suñu borom tegee natt bii waaw loolu mooy euh, taarix bi euh, mu am nag leneen loo xam ne ab sew-sew la boo xam ne dañ koy xaw di fàtte léeg-léeg muy mu mel ni nun waa daarul moxti ndax guddig bii gi damay wax ni noonu it sun sunub cëra ndax guddi googee la borom daaru moxti fanaane dox jugee ndar jaar Luga wuti Mbàkke Bari waxtu fajar laa gis sëñ bi kon sëriñ bi la di set boobu muy sant lu suñ borom le 18 eh, noonu ñii le 17 noonu waa Darou Darou Mouhty moo ko moom loolee nag sabab na guddi googu dama sant sama waa kër yépp ni leen eh, nañuy daje fii ci baas bi sëñ Gànna Mesre Maxtaar toog waxtaanam nu ci histoire borom daru ak i jukkoom ak i melokaanam ak yi jaar-jaaram ngir ñu am luñ ci mën a taatane loo xam ne des na ko mën a royee ci moom jërëjëf euh, Mbacke ñu ñëw léegi nag màggalu ren bi xam nga dafa am lu mu tombeek muy mbas mi nga xam ne sax bi ñuy waajal màggal gi doon nañu natable ñu naan màggal gi dina am ñu naan du am ndax mbas mi ak nu mu jegee woon euh, maanaam euh, app bi ñu appaloon màggal gi fu mu nekk nii màggal gi am na sëñ bi joxe na ndigal wane na aussi yoon daal di sax jëmmam bu tedd ja sol ay masque ngir wane taalibe nu ñu war a màggal see lu ni mel it nekk na loo xam ne jàng nañ ko ci màggal gi ren gis aussi taalibe yi ni ñu ñëwee ak ni ñu respecté mesure barrières yi bañ jàngale ñu mën a am ci doxalin boobu sëñ bi doxal ba lii am tey. alhamdulilah rabil aalamiina loolu dañuy delloo santaat yàlla rek ndax li ñuy sant yàlla mooy ndigal euh, ndigal li nga xam ne noonu dañ ko nangu suñ bopp noonu noonu ndax sëriñ bi doo nga leen am moom doo nga leen ñuy diglu nag lu mënu sant ñu def ko. lu munu nu bàyyi ko ndax euh, ragal ragal ragal jàngoro taxu nuy takki masque ndax boo amee seetlu fan yi ci ginnaaw am na ku ma xam koo xam ne fa muy jullee ajuma ñaareelu rakk ba mu ne sami allahu liman hamidoo fa la génne àddina te dara jotu ko woon kon nit ki moom li muy misaal rek mooy ab diggam fu mu agsee bu feebaree dem bu feebaru dem feebar it yóbbul kenn nag ndax képp koo xam ni yaa ngi ci kaw suuf si sëb dig ba ak siwut loo feebar feebar doo dem kon foofu rek fala la nu wékk suñu mbir leneen la ci topp nag muy jëfe ndigal rek mm-hmm. noo ngi sant nag bu baax a baax ndax ñun nii nga ko waxee ci màggal gi organisation màggal gi mooy organisation kër yi mm-hmm. kilifa genn ku ci nekk dangaa góorgóorlu ci sa kër organiser ko ñëpp na kenn desut organiser nga ngay xiwloo organise nga ni nit ñi saafante organiser nga nañuy xéewloo organiser nga nañuy tëdde te loolu nag boo xasee daj ci kër yi rek day daal di daj màggal gépp te loolu nemmeeku nañ ko kon nag loolu dañ ciy dolli sant yàlla bu baax a baax xanaa nag rek ñu am lu nu wax foofu muy lii nga xam ne sunu borom da ko fee wàcc muy loo xam dafa daj àddina bi yëpp te mel ni jaaxal na addina te moom moom sunu borom moom jaaxalu ko li nu war a def nag mooy delluwaat ci moom tàllaat tàllalaat koy loxo rek moo ko fee indi woon ah bu ko waxtu bu ko neexee na ko fi jëlee rek waaw te it mën na ko fee jëlee ba kenn duutu xam ni sax lu mel noonu mas naa am am na yu fi amoon yoo xam ne jóge nañ ba set fi wicc kon nag yal na ko fi yàlla jëlee noonu amin amin Mbacke euh, ginnaaw màggal gi ñu wax ci dëkk bi di Touba Touba ak ni muy euh, màggee euh, ni nga koy misaal naan Touba bu nga koy misaal ci liir boo xam ne at mu yàlla yàlla sàkkare bu ñëwatee rek fu nga xottilaat ko yére boo xam ne moo koy gën a jot ndax day màgg ren dégg nañ ay problème jëm ci wàllum ay ndox ak yu ni mel te loolu day dafa dafa dafa taxawoo ci taxawaay dëkk bi ni muy yokkoo gis na nag fu mu nekk nii ñenn ñi ngi naan war nañu xool nu ñu gën gën a jëmmalee dëkk bi ci wàllu gëdd administrativement bu ko defee li mu yellool ak lu mu war a mën a tey lu mu war a mën a day ñu mën ko euh, def noonu bu ko defee lépp lu jëm ci wàllu yaataayu dëkk bi ñu koy mën a gàttandu di ko mën a taxawee bu baax a baax bu magal amee euh, du am jafe-jafe yu mel noonu ñu bëggoon xam ne lu sa ci wàllu woowu. man de loolu li ma ci xalaat rek mooy mbay ji say wóom xam naa am na ci loo xam ne diggante la sëriñ bi la nga xam ne moo yilif dëkk bi yore titre foncier dëkk bi la man lépp nag ma koy def lée geneen wàll ga ca des nag muy wàllu gouvernement bi ñoom it nag ñi liñ man lépp ñu koy def waaye nag daa fekk ni li nga wax léegi rek dafa nekk liir boo xam ne neexut a ñëwal mbubb ndax jagle ko ko yàlla jagleel moo bëriwut a gis ci àddina lu ko yàlla jagleel wala amut fenn bokk ba tax na lii nga ma laaj nii de man xalaat bi ma ci mooy kenn ku ci nekk rek waa waajal sa kër ndax ndox mii nga xam ne ñu ngi ko jàmbat réseau bi mënta jox pression kër kilifa yëpp ak pexe muñ mën a def waaye kilifa genn ku ci nekk nag war ngaa mën a fexe nag ba am sa pression bopp ndax léegi xaw naa yomb parce que ne boo amee fii sa bassin cent mètres cube sa benn pompe képp nga ciy def pompe bi ñetti fan màggal gi rek nga koy jëfandikoo fu ñu ubbee robinet rek pression bi jóg su ko defee mën ngaa waajal sa bopp juróom benn weer ci ginnaaw ba nga xam doo ñàkk ndox te dafa doon loo xam ne fii mu nekk dafa àgg foo xam ne euh, kenn du toog rek naa sëriñ bi gouvernement bi déedéet ñun ñëpp loolu dafa bokk ci wàccaayu màggal gi bokk ci liggéeyu màggal gi bokk ci li nga xam ne dañ koy liggéeyal Sëriñ Touba fexe ba gan ñi wanag yi doy sëkk ndax ku soxla aajo amoo wanag yaa ngi ci loraange fexe ba ndox mi doy sëkk ci kaw kër goo ubbi dem boo ubbee robinet robinet bi xel yi loolu borom kër gaa koy fàggu fexe ba euh, lekk ki doy sëkk fexe ba kër yi ñuy toog doy sëkk fexe ba it ku ko mën nag guddi yi nu toll wala at yii nu jëm ndox mi day gën di yokk fii juróom juróom benn jëm kanam ah man de sañ naa ko wax conseiller ko ndax dama ko xalaatoon ay at ci ginnaaw def ko muy pavé kër yi dale ko ndax dal yi dana dimbali gan ñi ci bu ba séew ñu am fu ñu mën a laal tëdd fa ndax bu ko ci defut da nga dem ba mujj yàgg da ko bëgg te doo ko mën a def ndax ci leen jëm ba tax na wàccaayu màggal gi dañuy xam ne nag am na ci loo xam ne dañuy jéem a dindi wëq poos yi jéem koo delloo nag ci waajal gan yi mm-hmm. waajal gan yi ne bokk na ci waajal leen ba àdduñu ah, manqué ndox mm-hmm. waajal leen ba wanag yi doy sëkk waajal leen ba fi ñuy tëdd yaatu waajal leen itam ba ci sax yooyu yi nga xam ne ñu ci dëkk bi ndax lu am solo la mm-hmm. te yoo ku koy xeex te xamoo fa muy juddoo xamoo fa muy nene xamoo fa muy làq mënoo koo xeex da koy fekk fa muy jure nga faagaagal ko foofu koñ bi nu nekk de man naa wax daanaka yooyu di ceeb mën naa koy faagagal te ci lim bu néew rek laa koy defee loolu nag bu ci dëkk bépp maase woon ba tey day gën a wàññi doole yooyu waaw jërëjëf laaj mujj bi sëñ bi mooy euh, ban kàddu ngay dénk euh, askan wi ban kàddu ngay dénk ndaw ñi ñu lay déglu la teewlu ci euh, Ali Imran yi waa ndaw ñi day li ñu leen di dénk rek mooy ñu delloo dellu delluwaat ginnaaw xoolaat eh, jomi mag ñi ak doxinu mag ñi eh, maa ngi nett démb sama maam borom daarul moxte sama bàyyi am sëtu mbàkki mi ma yar danoo masa toog guddi muy nett li dama koy gàttal rek nag ba wax ne tubaab bi de bi mu tappalee borom daarul mi médaille ci wàlluk mbay bi mu taxee ba arrière ba mel ni kuy tóoj sëñ bi li mu ko tappalan da koo ŋëpp ci loxo bi ba mu dëgër mu xëtt ko boole ko yére wàcc ko mu ci suuf man di nag loolu téere yu bari ma ne si ko ciy bind ba tax na mag ñi lañu ñu nekkan bañ gañ daa nekk lu mat a bàyyi xel la ñaareel ba lii nu sóobu léegi muy wax ju ñaaw def lu ñaaw amul benn jariñ li am solo mooy nañu takku liggéey yi mm. réew mii liggéey képp képp képp moo ko mën a jële ci lii mu nekk du na gouvernement du keneen pexe mi pexe mi menn képp la muy futteeku liggéey waaw kese te ndaw ñi fi mu nekk nii foofu rek fi lañ war a maasee ñun ñëpp jëm kon nag loolu rek mooy li nga xam ne maa ngi koy dénk ndaw ñi weeg mag ñi weeg way jur yi jàppale leen te yërëm leen ñu la ko alxuraan sante soo noppee na nga takku liggéey te xam ne borom karaw moom ñàkku dara boo góorgóorlu rek suñu borom fekk si la boo góorgóorlu yàlla dimbali la te réew mi fii mu toll lool dafa dafa jot sëkk sëkk nag ci ñu bàyyee nag yi ñuy def nag te dem liggéey yi jërëjëf. jërëjëf Mbacke kon mu nekkoon interview bi xam ne amoon nañ ko fii ci Tawfekh kër sëriñ Mame Thierno Mikhdad Mbacke euh, mu dellu si bu baax ci li jëm ci wàllu màggal gi histoire bi waxit ci li jëm ci wàllu context bi ren wàllu Covid 19 bi. waxit lépp jëm ci wàllu tolluwaay dëkk bi ak xalaat bu mu ci am niki noonu it mu andi xalaat yu am solo jëm ci wàllu euh, yee ak ñaax ndaw ñi euh, di leen xir ci liggéey jàpp ne liggéey daal mooy li njëkk mooy li mujj mooy xidma bi nga xam ne maanaam sëñ Tuubaa bokk na ci li xam ne sos yoon boobu la di yoonu murit kon mbokk Ali Imran TV fi lañ yem ak yéen ci yeneen i jataay incha allah jërëjëf yéen ñi nga xam ne nag bëgg ngeen di jot vidéo yi di ba jot audio yi am na foo xam ne boo fa cliquer incha allah da mën a abonné nga xam ne lu ñëw ci rek nga jot ci